voilà donc euh, ñu jall ci benen actualité euh, Tom euh, li waral coow li ba ñu japp ci ki nga xamante ne imam imaam sànq yaa ngi ciy dugg moy li nga xamantene ne nañ ko moy venu Jean-Luc carmelasson université ba taxna rek ku nekk dal di siy joxe xalatam ñom nak ñu wax ci li fekk leen ci te yooyu noo gisee ñëwum Jean. Euh, Mélenchon ak li nga xamante ne mooy ndaje bi nga xamante ne daje nañ ak ñoom ak tontu bi Ousmane Sonko tontu boo ñu ko mënee tënkal la waaw tënkal la ko ci petit rapidement. Mhm. Euh, kontaan naa ci question bu wax ndax yaakaar naa ni sama ñëw bi yëpp ci question boobu rek laa doon xaar <laughs> waaw question rek laa doon xaar. non voilà loolu mooy actualité Sénégal mooy li ma laaj sànq euh, gouvernement état bu Sénégal ban rapport la ñu am ak góor jigéen ñi. non mais bul aussi Ousmane Sonko bi mo dalal Jean te Ousmane Sonko. L'air na Sénégalais ni que c'est en tant que euh, euh, président du parti. dina ko toloree waaw falaa jëm si. légui nak Ousmane Sonko xama sank dama wax ni Ousmane Sonko mo nek di diriger état bu Sénégal mais c'est pas le Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye dañ ko tek ci palais rek comme ben genre meuble bo xamni ni euh, suñ nee ko demal voyage il wëndeelu defal li ngay wara def en tout cas Ousmane Sonko dina diriger dina def li nga xamni mom moom la moom moom la nammoon ci Sénégal mu yak Sénégal mom la Ousmane Sonko namone ci Sénégal. légui nak nan lay xeexee ba yegg fi ba ñu jox la lepp nga bëgg yak yàq. Oh, très bien fa laa jëm ci Ousmane Sonko dafa am yu fi jaar lu bari ñu dégg ma def ci benn vidéo

Ousmane Sonko def déclaration ni dafa invité Jean Mélenchon ngir mom en tant que président parti mais du statut premier ministre. deug la. très bien légui nak fi nga xamné moy université Cheikh Anta Diop ñan ñoko mom ñun c'est privé. non c'est public. askan wi yépp ko mom lan moo tax bi mu ganam mënu ko yobbu kërëm wala hôtel da koo yóbbu fii Sénégal yëpp bon te pourtant bien que koy recevoir recevoir ko statut premier ministre lan moo tax Ousmane Sonko porte voix des sénégalais lan moo tax mu porte voix sénégalais yi ngir lan waxal sénégalais yi devant ki nga xam ne ab góor jigéen la léegi nag Ousmane Sonko man bi sétane émission bi xawma euh, sen conférence de presse bobu xawma ma ndaje de presse bobu bi koy bi Jean Mélenchon waxee ay étudiants di tàccu dama ne man ndeysaan man mi nga xam ne je suis un analphabète jànguma waaye de ñii maanaam gën a dégg tubaab. man damaa tiit ñoom justifié nañ seen tàccu bi. waaw justifié nañ ko. bi Jean Mélenchon daal ni je suis le premier législatif bu jël këyit xaatim ko. dem dépose ko ci assemblée national xeex ko ba ñu ba ñu daganal li nga xam ne muy mariage góor ak góor jigéen ak jigéen nit ak xar baa nit ak bëy baa nit ak nag moom loolu la da la daganal parce moom loolu lay xeex. na loolu lay xeex loolu mooy góor jigéen góor jigéen xam nga lan mooy góor jigéen du ñaari góor yu sëy wala ñaari jigéen de maanaam nga fekk néew bu faatu. nga dem pour bëgg a sëy ak moom sax ak ngóor jigéen ci la bokk. nga fekk fas di sëy ak moom ci ngóor jigéen la bokk dafa yaatu. ndax loolu moom moo euh, alagoon li nga xam ne mooy xeetu luut soxna luut lan moo tax suñu borom boole ko ci mbugal ga. parce que soxna luut da doon jàppale góor jigéen yi bi mbugal gi dikkee da ko cee boole bi mbugal gi dikkee dafa cee boole soxna luut te soxna yonent la kon na gars yi bàyyi seen caaxaan yii Ousmane Sonko li nga def ci Sénégal tegoo ko ci dëgg tegoo ko ci yoon Ousmane Sonko waroo jël ab góor jigéen indi ko fi ni statut président parti nga ko recevoir di ko yóbbu ci université bu ñëpp bokk. lolo sam mo jar question motax tax bima nan la Ousmane Sonko mo nek di diriger état bu Sénégal mais chef de gouvernement lañu wax il n'a qu'à diriger le gouvernement mais pas l' état c'est état de toutes les institutions kon nak da fa a seetaat taxawaayam man nak fimay xaar Ousmane Sonko ci goudi yi ñu tollu ni moy li nga xamni mom lañuy def chaque mercredi conseil ministère Bassirou Diomaye fay jël ay actes forts préparer un projet de loi criminaliser li nga xamne moy goor jigen bi nga xamne Ousmane Sonko politiquer nako ci Sénégal yépp wër na ci kilifa diina yépp deg ngeen Karim Khourou Khar néna euh, li nga xamne moy liste biñ doon def pour signer pour criminaliser li nga xamne moy goor jigen Ousmane Sonko signé wuko lan motax signé wu ko dafa signé réserve Karim Khourou Khar moko wax vidéo yaagi fi ñepp di dégg ñepp di dégg dégg ngeen ba jaxaté wax na ci avant sa ñu koy arrêté wax na ci kon nag yaakaar naa ne Ousmane Sonko su bëggee dindi tuuma bi nga xam ni moom la sénégalais yi ñi ñi ko sañ a wax ak ñi ko sañ ta wax di teg ci daram yépp muy tuuma boobu dafa bëgg a daganal góor jigéen su ko bëggee dindi la mu waxoon ca wal fajiri na ko appliquer criminaliser plus rapidement l'homosexualité ndax du suñuy réalité